sama mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di si bëggee bu baax bienvenue ci seen site internet www.rewmi.com alors seen point truc et astuce tey nag loolu dafa ñëw andil leen benn produit ba nga xamante ne nii on l'utilise très très très rarement chez nous te pourtant noonu la efficace alors je vais parler du bicarbonate de soude que voici bicarbonate. en dehors de son utilisation pour la cuisson maanaam bu weesu togg bi lépp li nga xamante ne ni mooy ndawal bu dër lépp la nga xamante ne ni mooy yeel mën nañ ko utiliser si yeneen i manière alors bicarbonate dafay agir de la tête aux pieds ça commence par la tête vous pouvez faire un shampoing avec maanaam boo jëlee sa shampoing nga def si une cuillère à café de bicarbonate nga raxasee ko sa bopp ba mu set vous allez voir que tout ce qui est pellicule tout ce qui est crasse dafay wecc te dootula yemati bu jógee ci karaw bi nag dafay ñëw ci kanam bi alors vous avez un petit peu d'huile d'olive ak du bicarbonate de soude vous faites le mélange ngeen koy appliquer seen kanam di ko def gommage donc vous massez de façon circulaire à ce que tout ce qui est cellule morte tout ce qui est peau morte dafay deñ bu ngeen paree bu ngeen raxasee seen kanam di ngeen gis nekk dafay liis dafay nooy donc huile d'olive bi tamit boo ko amulee mën nga ko def ak ndox kese un tout petit peu d'eau et bicarbonate de soude def ko masque di ko maase lentement sa kanam massage circulaire ba lépp dañ ngeen pare ngeen sëlmu ba set lépp luy tache noire lépp luy bouton bicarbonate de soude ak citron moo ci aay bu ngeen jëlee tuuti bicarbonate toxal ci limon bi def ko ci seen ay picc di ko frotter nànk-nànk daf koy dindi ba mu set mais attention pour ce mélange de bicarbonate et de citron il faut le faire le soir maanaam guddi nga koy def pour éviter rayon solaire yi ak limon bi mën na lakk sa kanam bu jógee foofu nag day ñëw ci gémmiñ gi mën nga ko def comme bain de bouche boo jëlee sa veeru ndox tàngal ko ba mu tàng nga bàyyi ko ba mu ceeb ba mu ba nga sentir ne xaw na sedd tuuti nga def si cuillère à café bicarbonate de soude nga koy yàllandee sa gémmiñ faut faire ça plusieurs fois dans la semaine y a pas de danger day dindi lépp luy saleté sa biir gémmiñ vous brosser les dents avec mais attention pour brossage bi nag il faut le faire une fois par semaine alors je répète il faut brosser vous les dents une fois par semaine avec du bicarbonate de soude pour ne pas agresser l'émail de vos donc euh, bicarbonate aussi mën nga ko utiliser comme déodorant naturel donc après la douche prenez un tout petit peu de déo euh, seen loxo ngeen def ko ci seen suufu poxotaan yi délicatement ngeen masser délicatement nag pendant cinq minutes bu ngeen pare ngeen plumer ko ndànk ngeen fëgës ko vous allez voir que ça agir comme un déodorant mën ngeen ci raxas tamit seen ay fruits et légumes prenez 2 litres d'eau def ci une cuillère à soupe de bicarbonate de soude raxasi seen fruits raxasi seen légumes vous que lépp luy saleté yi ci nekkoon dafay deñ complètement léegi na tout ce qui est canalisation non mais vraiment tout ce qui est canalisation évier lavabo bicarbonate moo ci ay jël leen seen ay évier sotti ci bicarbonate jël du vinaigre blanc chauffé au préalable c'est-à-dire nga jël vinaigre bu weex bi nga tàngal ko tuuti. fekk sotti nga bicarbonate bi ci évier bi sotti ci vinaigre bi alors là tout ce qui était graisse tout ce yu yooyu noonu di taxaw ci sa ci sa kii di boucher sa sa lavabo yëpp lay dindi carrément bicarbonate tamit baax na ci ay dàll yi camembert baax na ci moquette baax na ci tapis baax na ci lépp donc utiliser leen ko essayer leen. après vous allez me dire ce qu'il en est. daa leen andiloon tey ci seen coin truc et astuce ci seen site préféré www.rewmi.com donc je vous donne rendez-vous prochainement ci beneen astuce ak beneen produit.